dañoo nekk ci réew bi nga à chaque fois dañu dégg ay augmentation par ci et par là te ñun askan bi dañoo am cër ci réew mi buñ demee ba suñuy gouvernant di jël yenn décision yi war nañ bàyyi xel askan bi nga xamante ni ñu ngi toog am ay jafe-jafe ñu ngi am fay courant saa daf leen a të defuñu loolu ñu ok dañ ñuy suñu courant mën nañ jàpp ne tey dañoo commencé ci yokk courant bi mais d'ici peu de temps il y aura des conséquences conséquences yi lan la boulanger bi dina taxaw ne ok yokku nañ courant bi man it dinaa yokk sama mburu yokku nañ courant bi tailleur bi bi nga xamante ni facture lay utiliser su ma demee di ñawlu sama yére man it dinaa li nga xamante ni mooy fa daan fay donc les conséquences sont nombreuses te yoon la ñu jóg yoon la ñu xamal suñuy gouvernant ne le pays va mal yoon la ñu xamal suñu gouvernant que ne nit ñi bu ñu xiifee amuñu lu ñu lekk yoon la ñu xamal suñu gouvernant yi ne ambulant baa ngi fi huit heures ba treize heures pour mu am benn cinq cent francs c'est problème kon il faut ñu bàyyi xel ci askan bi bàyyi ci xel ci askan bi nga xamante ni tey bu yàlla ji xiinoon tey amuñu fu ñu fanaan donc nañu bàyyi naxaate yi nañu bàyyi di bluffer le ministre le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Diallo, en 2018 moom moo fi waxoon ci campagne yi ne courant il dañ koy wàññi wala du moo fi waxoon il faut qu'on soit sérieux dans ce pays là il faut que suñ gouvernail, yi à nous fonk di nous respecter askan bi nga xamante ni ñoom ñooy fay seen impôts, impôt ñoom ñooy fay seen jàng doom yi ñoom qui fay seen néeg yi nga xamante si la nekk ñoom ñooy fay seen kër di leen di fayal lépp seen prise en charge kon yoon la ñu bàyyi yokk yokk yokk ba kañ le pays mal. duñ ko nangoo duñ ko nangu ñoo lànk ñoo bañ duñ ko nangu duñ ko nangoo duñ ko nangu ñoo lànk ñoo bañ duñ ko nangu.